salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di am mbégte bu yaatu nag comme niñ koy faral di defee jamono bu nekk bu ñu amee loo xamante ne war nañ ci waxtaan mu ñeel xew-xew wala mu ñeel ni réew mi di doxee ñu dikk ci ak yéen daal di ci xuus wax ci suñu xalaat umple woo leen nag nag diggante démb ak tey am na ay xew-xew yu xew ci réew mi mu jëm ci wàllu actualité politique mu ñeel ki nga xamante ne moom moo di le leader du parti Pastef di Ousmane Sonko mu am lu xew ci diggante moom ak euh, benn gendarme la ñu wax ñu ne renseignement généraux la bu ko doon filmer ba mu am ay jàppante ci seen diggante ba police mujj def assaut ci biir këram jël ko ba mu nekk ci garde à guddi yi ñuy waxe ak yéen mu nekk loo xamante ne nag duñ ci dikkaat parce que événement yi ni mu déroulé woo diggante démb ak tey ñëpp gis nañ ko ni événement yi déroulé woo ak li ci xew yëpp xew ci ak guddi yu ñu waxee ak yéen ndakaaru lu mu nekkee di am ay jafe-jafe un peu partout loolu yëpp sénégalais yi ñu ngi koy gis te sénégalais yaakaar naa ne ku ci nekk am nga si sa appréciation personnelle mu nekk loo xamante ne nag wax dëgg yàlla mun nañ ko analyser d'une façon ba pare nag am luñ ci indi ci suñu ay réflexion mooy ne dama jàpp ne le président Ousmane Sonko ñi nekk ak moom ci kujje ci wàllu politique moo xam ñu nekk pouvoir ñoo xam ñu nekk feneen ñëpp ànd nañu d'accord ne c'est pas un sénégalais simple parce que nag dafa am ay junni junniy sénégalais yoo xamante ne dañoo am ci moom yaakaar am ci moom yaakaar ba tax ñu ànd ci li nga xamante ne moom lay prôné ak projet bi nga xamante ne am na ko ngir Sénégal démb li ñu ko def dem fekk ko ci biir njabootam avec beaucoup d'intimidation intimider njabootam impide intimider ay mbokkam intimider ko devant ses enfants et ses femmes pour acheminer ko après après directement ci niñ ko jëlee mani militaire jël ko yóbbu ko fi ñu ko yóbbu ba tey ji mu nekk ci garde à vue je pense que loolu sénégalais yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoom ñoo gëm le projet bi nga xamante ne le président Ousmane Sonko moom lay prôné gëm li nga xamante ne moom mooy fi mu bëgg yóbbu Sénégal ñooñu ku nekk am nga ci sa appréciation ku ci nekk aussi nga na nga ci jël sa responsabilité parce que foofu lañu tollu ci réew mi. ba tax na euh, loolu nag bi mu xewee dafa am loo xamante ne dafa xëy tey xew mu nekk rek benn suite logique parce que nag yàlla dogal na ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite xam nañ plus ou moins ni ñuy fonctionner ak ni ñuy raisonner ba tax na lu mënti xew rek dinañu toog ñun analyser ko mu di journaliste bii di Pape Alé ñu jàppoon ko fi ay jamono bala ca xewoon xewaat ci euh, tey ñu convoqué waat ko ci fi nga xamante ne bii moom moo di section bu recherche pour mu waroon ñëw wuy ji suba dimanche ba ñu ko convoqué teguñu ci ab diir. ñu fekk ko fi mu nekk jël ko comme nañ ko jëlee woon bu njëkk patam patamee ko yóbbu ko euh, ma waxoon leen fii nag ay wax yoo xamante ne dafa baax tey jii ñu fàttaliwaat ko parce que tout simplement Pape Alé mën naa ne de novembre deux mille vingt deux ba fii may wax ak yéen tey nii moom jëmmam moo nekk di dox mais moom physiquement il est en prison loolu mooy dëgg il faut dire les choses telles qu'elles sont. parce que ñi nga xamante ne yàlla dafa dogal ñu yor nguur di jiite guddi yu ñu toll ñoom dañoo jàpp seen puzzle yi ñu nekk di ko teg ñoom au fond de te li may wax nii dinaa ci indi firnde ci kanam tuuti ci ay waxtaan yu ma ci am ñu ma ci séqal ñoom dañoo jàpp ne Pape Alé Niang c'est bu nga xamee ni que ñoom puzzle yi ñu teg ak projet yi ñu am war ko doxal Pape Alé Niang entrave la ci c'est quelqu'un bu nga xamante ne fileeg mi ngi am possibilité di wax ñu koy dégg il constitue un danger permanent pour leur projet funeste li may wax nii nag lu ma assumer la et lu ma xam la parce que Pape Alé Niang bi ñu ko jàppee ci novembre 2022 jox ko liberté provisoire révoquer liberté provisoire boobu jàppaat ko bàyyiwaat ko au mois de janvier ba ñu ko bàyyee le lendemain la ñu commencé waat di planifier nan lañ koy jàppee wala nan lañ koy faagaagalee te loolu dinaa leen ci indil ay firnde firnde bi ci njëkk mooy Pape Alé Niang bi ñu ko bàyyee ba mu nekk ci wér gu yaramam commencé waat di faju ba commencé jotaat boppam maanaam courage am ak dignité am mayu ko mu toog di noppi ci li xew ci réew mi mu tàmbalewaat liggéeyam booba ñoom ci la ñu tàmbali. créer seen laboratoire parce que nag dinaa leen il faut que ñu wax leen di xew dëgg-dëgg nguuru Sénégal guddi yu ñu toll dañu créer seen benn genre laboratoire boo xamante ne dañu fa def ay ordinateur teg fa ay nit sant leen benn mission mission bi mooy képp koo xamante ne yaa ngi wax sa xalaat ñu identifier la ci réseaux sociaux yi te xalaat boobu méngoowul ak xalamal Macky Sall ak waxal nguuru Macky Sall lu leen neex saa yi suñu xëyee dinañu scruter lan ngay bind lan ngay wax bu ngoon jotee ñu def rapport jébbal ko ñoom ñi ngi ko war a jébbal xam ngeen bu baax ñi ngeen koy jébbal Pape Alé Niang depuis qu'il sorti de prison chaque jour que jëfee fais poste bu mu mën a def sur ses réseaux sociaux sur Dakar Matin et la chaîne YouTube Dakar Matin du matin ba baamul muy tëdd si lal poste yooyu yëpp dañ koy recouper pièce par pièce di ci def rapport di ko jébbal ay nit parce que tout simplement Pape Alé Niang li leen gën a metti ci moom mooy live yi muy def sa sa dérange jusqu'au plus haut sommet de l'État loolu mooy dëgg l'audience que Pape Alé à a traversé live dérange l'État du Sénégal jusqu'au plus haut niveau li may wax nii nag lu ma wér la man du ma nekk di ne wala may waxantu ñoom nag projet bi ñu amoon ba enlever Pape Alé Niang séquestré ko le 6 novembre 2022 ci même projet boobu la ñu nekk ba guddi yi ñu toll di wax ak yéen parce que ñoom seen objectif mooy benn soit Pape Alé Niang dinañu fexe ba noppiloo ko dootul wax ci réew mi par tous les moyens soit physiquement dinañ ko faagaagal mu jaaree fa dem bàmmeel loolu mooy objectif bi li koy firndeel mooy jamono yi ci ginnaaw bi mu junjee ne am na ku mu defal interview mu bokkoon ci nervi yi nga xamante ne yéen yéen leen recruter jox leen ay armes ñu nekk di tirer ci kaw sénégalais yi ba rey ci ay sénégalais lors des récentes manifestation le premier le deux et le trois juin bis bi mu jibalee ne am na kum ci waxal bis boobu ngeen tàmbali à travers benn anniversaire boo leen doon feete yéen ñi may wax yéen a ngi may déglu xam ngeen li may wax mu am benn ministre de la république bu nekkoon ci anniversaire boobu loolu jib mu ne faw ñu planifier naka la ñuy faagaagalee définitivement Pape Alé Niang parce que il commence vraiment à nous dépasser loolu ngeen waxoon ba ngeen ci jugee dem ngeen seeti ay agresseur pour ñu defar leen euh, loolu ñoo ñu bañ ñooñu bañ ba tëj ci suuf ngeen lijjanti lijjanti lijjanti lijjanti mu të ngeen wël bàyyi loolu yépp wëlbatiku di ko topp subaak ngoon guddeeg bëccëg ngeen di wër-wërloo ak moom ci biir dakaar fu mu dem taxaw gaare di dox soxlaam ngeen ñëw gaare à ses côtés fu mu dugg di dox soxlaam ngeen dugg fekk ko fa li may wax nii nag c'est très important ni ñi bàyyi xel ils ont tout fait tout essayé pour liquider Pape Alé Niang physiquement et yéen ñi nga xamante ne yéen doon planifié loolu yéen a ngi may seetaan xam ngeen ma xam naa leen mais nag fi mu toll nii xam nga xeex bi lan la xeexu yoote la man waxoon naa leen lu leer nee naa leen Pape Alé Niang fileeg mi ngi dund ci kaw suuf di dund ci Sénégal àppam jeexagul ci kaw suuf mënu leen ci moom lu dool ni tarfatal ay ni loo xamante ne neewul ne ndogalu yàlla suñu borom moo ci ànd te bu ngeen demee ba yegg ci loolu bu ngeen demee ba yegg ci loolu ci boobaa ngeen di xam ne lépp dëgg la parce que nag xeex bi fi mu toll nii xeexu tactique la xeexu xel la parce que da ngeen na da ngeen na déclenché benn benn opération opération bi c'est une opération de neutralisation ba ngeen ko déclenché sax yàgg na d'où l'arrestation de beaucoup de membre de PASTEF d'où l'arrestation des gens comme Cheikh Omar Diagne d'où l'arrestation comme Abdou Karim Gueye d'où l'arrestation de d'autres personnes yoo xamante ne Cheikh Bara Ndiaye dañuy wax seen xalaat ci réew mi te ñu am droit bi yéen ngeen ne nag ñépp ñi nga xamante ne ñoo leen ñoo ñoo nekk ci télévision yi ak ñépp ñi nga xamante ne ñoom ñoo am kàddu ñu leen di dégg ci réew mi ñuy wax seen xalaat ñuy wax seen xalaat de façon claire nette et précise te seen xalaat boobu ñuy wax amaana dafa méngoo ak gis dafa méngoowul ak gis-gisu Macky Sall ngeen ne ñooñu ñu am jàmm ci réew mi pour Pape Alé Niang nag c'est exceptionnel parce que da ngeen koy suivre comme du lait sur le feu yamatu leen ci déglu ko téléphone tout le temps yamatu leen ci xool lu muy liggéey sur internet ak lu muy wax mais da ngeen ko doon topp matin midi soir te li may wax xam ngeen ko xam naa ko te yéen Pape Alé bi mu génnee ci kaso bu seen pexe juboon buñ ci tegee ab diir mu fanaani bàmmeel li may wax xam ngeen ko xam naa ko nee naa leen nag fi mu toll nii ci xeexu xel lañ toll ñun li ñuy def xam nañ ko bu baax on sait très bien comment planifier la combat combat bi nag musul woon arrêté dañ koy continuer parce que tout simplement yéen jàpp ngeen ne yéen da ngeen ko waxtaanee en fait da ngeen ko waxtaanee ci ay nit mu dox ba yegsi si ñun ngeen ne carrément Pape Alé Niang fait partie des personnes yi nga xamante ne pour que yéen ngeen accéder ci li ngeen bugg a def def ko sur le dos des Sénégalais il faut que moom ngeen éliminer ko wala ngeen noppiloo ko par force ngeen éliminer ko wala ngeen noppiloo ko par parce que yéen da ngeen jàpp da ngeen jàpp ne moom il constitue benn entrave ci projet bi ngeen bëgg a doxal ngeen teg ko fan réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk nekk ay sénégalais ngeen am seen ay journalistes yoo xamante ne dañuy raam ci biir pale bi Macky Sall di leen dëggate ñu nekk ay jaamu Macky Sall nekk ay larbin chaque jour bu ñu xëyee jàpp Macky Sall di ko taggal ay maamam Pape Alé Niang fi mu bokk ak njaboot gi mu bokk kuy dagu nit bokk ci il faut que mu leer il faut que ngeen comprendre que ne Macky Sall ak moom yow ak ñi xelal il faut nga comprendre benn affaire nga intérioriser ko pour de bon mooy am na nit ñoo xamante ne boo leen doon tëj kaso cent ans wala trois cents ans principe yi ñu am principe yi ñu am ci seen xol di ko dundee ak conviction yi ñu am dara mënu cee changer et c'est le cas de Pape Alé Niang malheureusement pour toi monsieur le président avec tout le respect que je vous dois yow ak ñi nga àndal ñu lay xelal nan la diw sàngam effacé ko diw sangam noppiloo ko nga jàpp ne loolu boo ko defee moom mooy solution idéale pour que yow nga mën a dérouler li ngay bëgg a dérouler ñooñu dañ lay nax parce que Pape Alé nga jàpp ko yóbbu ko Kédougou wala nga jàpp ko gas ba mu xóot suul ko ba mu neex la nga sulli ko taxul ay principe am ak li mu gëm changé dafa am ñoo xamante ne deretu góor mooy daw seen yaram bu fekkee da ngaa am sa ay journalistes yoo xamante ne ay jaam lañu ay badolo lañu lu ñuy def seen poste moo leen gënal lu ñuy wax ci askan wi askan wi di ko dégg kooku Pape Alé Niang bokk ci li may wax nii nag je le dis de façon très claire ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo la wër di la defloo ak di la dindiloo ñu xam ko ak kum mënti doon il faut que les gens comprennent que ni dafa am ci réew mi ñoo xamante ne dañu judd ci ay gor nekk gor yu set wecc am lu ñu gëm ci réew mi bëgg réew mi gëm réew mi Pape Alé lu mu yàqule ci réew mi ak lu mu ñàkk ci réew mi bëgg réew mi ak gëm réew mi moo ko ko moo ko ko yóbbee lu mu ñàkk ci réew mi ak lu mu ak problème bu mu dugg ci réew mi gëm réew mi ak bëgg réew mi bëgg réew mi tegu ci etat de droit bëgg réew mi tegu ci anam yu wér nit ñëpp yam loolu moo ko ko yóbbee et il est important que yow le président Macky Sall ñu lay rappeler les choses am na ñoo xamante ne en aucun cas mënoo leen jënd adduna du neex ba ñu raam ci sa kanam adduna du ñu du neex ba nga mën leen a jàpp di leen manipuler comme tu fais avec certains journalistes y journalistes yoo xamante ne ils sont manipulables c'est des gens qu'on peut qu'on corrompre parce que li leen intéressé mooy xaalis li leen intéressé mooy seen bien-être li leen intéressé mooy am ay privilèges Pape Alé Niang bokkul ci loolu yow yaa gën a xam Macky Sall ne Pape Alé boo mënoon ci moom dara guddi yi ñu toll mi ngi ci sawet mais mënu leen ko donc encore une fois ñun ñëpp dama ne la picc yi naaw Sénégal picc yi naaw di tag ci garab yi sax xamoon nañ ne papp Alé Niang day duggaat ci kaso yi ñun si ko ñun ñun perso man boog personnellement loolu ni ni ma leeree ne nag Thierno laa tudd noonu la ma leeroon ne Pape Alé Niang day delluwaat ci kaso bi. parce que tout simplement projet boobu ngeen am di ko doxal di ko mûrir depuis des mois bi mu génnee prison ñaari projet ngeen amoon soit faat ko wala delloowaat ko prison. te fi ngeen ko delloo prison nag c'est stratégique baax nañu waxtaan ci parce que tout simplement c'est bien calibré c'est bien paramétré jàpp Sonko dugal. jàpp Pape Alé dugal parce que jàpp ngeen ne boo leen jàppee Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi Pape Alé Niang dina taxaw jàkkaarloog sénégalais yi wax ci xalaatam de façon objective te audience bi mu am ak nit ñi koy seetaan di ko bàyyi xel loolu arrangé wu leen tout est bien orchestré bu leen yaakaar ne nit ñi dañoo dof wala nit ñi xamuñu lu xew vous avez très bien planifié tout pour revenir sur les détails ngeen ne Pape Alé Niang loo leen koy toppee appel à l'insurrection par rapport ak live bi mu def démb mais live bi mu def demb mbokk yi dama leen di ñaan ngeen dem sur la chaîne YouTube Dakar Matin c'est un live de plus de deux heures de temps ngeen déglu ko de A à Z ngeen déglu ak xel ngeen ngeen wax ma fan la Pape Alé defee appel à l'instruction te ñoom motif bi ñu ko collé mooy moment bi muy wax ak le chef de protocole de Ousmane Sonko muy relater les faits ci li xew biir kër Ousmane Sonko ak naka la nit ñi jël see Ousmane Sonko mais yaa xayti un journaliste est-ce que est-ce que est-ce que un journaliste n'a pas le droit lu toll noonu xew ci réew mi mu am ay sources am ñu mu mën a mën a woo. waxtaan ak ñoom mu woo leen ne leen comment ça s'est passé relaté ko sénégalais yi xam réellement qu'est-ce qui s'est passé journaliste amul droit boobu kañ moo dégg Pape Alé Niang na mu appelé à l'insurrection ne sénégalais yi jóg leen xeex wala jox leen lii du rôlam yoonam nekku ci son rôle c'est de donner une information et vu la situation nu mu mën a def pour gindi askan wi dina ko def mais il faut ngeen comprendre que ne Macky Sall et son régime Pape Alé Niang est victime d'un acharnement judiciaire par rapport au régime de Macky Sall te li ma leen wax nii nag mbokk yi dama bëgg ngeen bàyyi ko xel jusqu'au plus haut niveau des autorités judiciaires y en certains yoo xamante ne dama lay wax lu leer des ministres de la République yoo xamante ne ils ne veulent même pas que quelqu'un prononce le nom de Pape Alé devant eux ci bañeel buñ ko bañ bañ nekkatul affaire u ay nit joxe point de vue am nga dak nga bañ ci d'accord et cetera c'est une affaire de haine dama lay benn affaire les gens de l'alliance pour la république surtout des ministres de la république ils ont une haine viscérale contre Pape Alé parce que tout simplement position bi mu adopté arrangé wu leen ngeen ko fan ngeen teg ko fan ngeen defe ne réew mi nit ñi dañ fiy nekk bàyyi leen ngeen téye réew mi mais doon donnu leen ko ci ndey donnu leen ko ci bàyyi ku leen neex ngeen jàpp tëj ku leen ku leen ku àndul ak yéen ci gis-gis ngeen bunduxataal ko mais ngeen teg ko fan. Macky Sall donnul réew mi ci ndey donnu ko ci bàyyi ba ku ko neex mu jàpp lu la tëj lu la parce que tout simplement arrangé woo ko discours bi ngay tenir arrangé wu ko mais dan quel pays et puis sénégalais yi toog di seetaan il faut que sénégalais yi aussi ñu am objectifité di xeexal ñi nga xamante ne ñoo leen di xeexal ñi nga xamante ne bu xeex jutee ñu jug taxaw xeexal sénégalais yi ñi nga xamante ne bu wax jutee ñu jut alerté waxal sénégalais yi ñooñu au yi aussi il faut que ñu am ce courage et cette détermination di xeexal ñi leen di xeexal c'est ça la réalité parce que bu ñu demee ba toll ci réew foo xamante ne kenn respecteetul dara du justice du dara lu ñu respecter ci réew mi même procédure yi ñuy jaar sax pour convaincre nit ñi les droits les plus élémentaires des citoyens kenn du ko respecté les droits les plus élémentaires des mais comment tu peux convoquer quelqu'un le dimanche ok d'accord tu as convoqué quelqu'un le dimanche d'autant plus que c'est pas un jour ouvrable parewul ci wax waxu convocation bi ñu ko convoqué dimanche nga jëm fekk ko këram jël ko bogo bogo yóbbu pour lan ci ban réew la ñu nekk wala Macky Sall dafa jàpp nañ ñun ci royaume lañ nekk mais quand même sénégalais yi nañ waxante dëgg tuuti man li may wax nii dama leen koy wax parce que tout simplement c'est pas à cause de Pape Alé c'est plus profond que Pape Alé parce que gis nga man waxoon naa leen ko bi ñu tàmbalee fii jàpp Pape Alé en novembre 2022 ma ne leen Macky Sall bu bu paree ci Pape Alé ci ñeneen la jëm ba mu paree ci Pape Alé kañ la dem demul ci Pape Ndiaye demul ci Coro Maxu Mandela demul ci Babacar Touré demul ci Serigne Saliou Gueye l'objectif sa Macky Sall c'est moom ñëpp ñi nga xamante ne moom ak gouvernement am ñëpp ñi nga xamante ne dañuy wax te li ñuy wax ñu koy teg ci akulaayu taala bu fekkee ne y a des choses qui ne marchent pas dans pays ñu dénoncé ko avec objectivité ñoo ñu makki sàll bugg leen gis ñuy am jàmm nekk ci biti di doxal mais pour lan yow ñu fal la démocratiquement nga am ñoo xamante ne dañu ànd ak yow gëm di supporter li ngay def mu am ñeneen ñoo xamante ne dañoo waroo xalaat ak yow ci sa doxalin nga ne ok ñi nga xamante ne ñoo ànd ak man dañuy am jàmm dañuy am tawféex ci réew mi ku leen neex saaga ku leen neex duudal ku leen neex sosal lu leen neex def ci réew mi justice du leen laal du leen jege mais bu fekkee am na yeneen sénégalais yoo xamante ne ñoom seen gis-gis dafa wuute ak sama gis-gis ñooñu du ñu am jàmm ci réew mi sénégalais yëpp toog di seetaan comme si c'était quelque chose de normal comme si c'était quelque chose de normal mbokk yi nañu waxante dëgg tooñ baaxul Il faut qu'on respecte les droits les plus élémentaires des uns et des autres. Macky Sall, tu le président, excuse-moi, vous êtes le président de la République de tous les Sénégalais. sa mbubbu affaire bi li laxi war a soli summi ko nga teg ko fële juróom benn weer yi nga xamante ne moo la dese réew mi nga fexe nit ñi am dal ci réew mi réew mi dañu sonn ci garde à vue réew mi dañu sonn ci retour de parquet réew mi dañu sonn ci euh, euh, euh, incarcération réew mi dañu sonn ci enlevement réew mi dañu sonn ci séquestration réew mi dañu sonn ci ay poursuite réew mi dañu sonn ci ngay topp nit ñi di leen def sous écoute di leen déglu subaak ngoon guddeeg bëccëg amuñu benn intimité ñu wax ak kenn téléphone réew mi dañu sonn ci ñu leen di sotti ay la grenade lacrymogène réew mi dañu sonn dañu sonn ci dàqante ak ay policiers dañu sonn ci gis ay blindés partout dans Dakar mu mel ni bande de Gaza les Sénégalais sont extrêmement fatigués avec ce régime de Macky Sall les gens sont dégoûtés de ce pays-là parce que tout simplement am na ay nit ñu nekk ci kaw monopoliser affaire bi nu mu leen neexee ku ñu bëgg tëj tëj ku ñu bëgg a jàpp jàpp yaakaar ngeen ne Pape Alé bu defoon bu bindoon livre. di xalamal Macky Sall heure bii dina ko fekk ñu naan ñu mi ngi garde à vue di waaj a dem euh, dajeeg juge pour dem prison appel à l'insurrection jarul nekk fii di laajte ñëpp xam nañ ne bu demee taxaw juge bi juge bi dóor ko mandat de mandat dépôt parce que tout simplement tu n'es pas d'accord avec le gars parce que le gars dafay des dangers parce que le gars c'est live démange dérange au plus haut sommet de l'État ba ngeen koy scruter comme ceeb bi jën boo leen lekk c'est live da ngeen koy scruter non pièce par pièce parce que tout simplement audience bi mu am sax am na télévision yu ko amul buy def live parce que tout simplement demb da doon def live sur la situation restation de Ousmane Sonko il plus de vingt-deux mille personnes qui regardaient nga ne kii yaakaar nañ ne ne bu ñu jàppee Sonko moom mu nekk ci biti noo bu commencé di wax ci affaire bi ça ne nous arrange pas léegi kenn du wax kenn amul droit wax sa xalaat ci réew mi mais ba kañ mbokk yi ba kañ sénégalais yi dañuy wuy di seetaan loolu ba kañ ñaata doomu senegal ñoo nekk ci biir kaso yi dama ne Pape Alé Niang la muy xam moom serveur la je jure sur le Saint Coran que c'est un serveur d'information la muy xam yëpp waxu ko dëgg ci tànkam bis bu ko waxoon réew mi tàkk et vous nous parlez de appel à l'insurrection nga dem topp live bi ba mu jeex pendant deux heures de temps gisuloo fenn fu mu woowee benn sénégalais ne la génneel sànni xeer bu gën a ndaw c'est parce que tout simplement yéen vous avez planifié votre votre votre truc ne ngeen moom ak Sonko faw ñu nekkandoo ci biir parce que bu kii ci biir moom mu nekk ci biti mun na causer beneen problème par rapport à la communication et naka la ñuy relayer les informations d'autant plus que sur l'international il ne faut pas que Macky Sall mu continuer di foye liberté doomu aadama yi juge ak magistrat yi nga xamante ne dañu leen dénk àtte te am yaakaar ci ñoom il faut pas que ñuy foye liberté doomu aadama yi liberté doomu aadama dafa sacré xam nga nga jëlee nit ci këram dem yóbbu ko ci benn barab teg ko fa fi nga ko yóbbu teg ko fa buy def ay besoin am ci ay situation yu yu yu yu doy waar la koy defee ñëpp xam nañ garde à vue lan moo ci nekk mais pendant ce temps monsieur le président mu am ñoo xamante ne yow ci sa signature la ñu am amee barke falu nga yëkkati nga yëkkati kopparu askan wi ay deniers publics dënk leen ko ngir ñu liggéeyal askan wi ay rapport de cour de of nag IGE épinglé leen ci ay détournement de deniers publics cité leen nommément de 2012 à maintenant amul benn rapport des corps de contrôle monsieur le président boo xamante ne dafa épinglé kenn ku bokk ak yow APR wala kenn koo xamante ne dafa bokk ak yow coalition nga fal ko ci post de responsabilité rapport du cour du contrôle am ko euh, épinglé ko mu am une suite judiciaire loolu mooy bonne gouvernance pendant ce temps ngeen di benn nit boo xamante ne wax lay def xalaatam pendant ce temps mu am ñu lang ak yow sàcc suñuy milliards rapport de cour de contrôle épinglé leen kirtim nga war a mën a dem am ngoru dem justice layoo boo layoo ba noppi ñu xam yaa def wala defoo de 2012 à maintenant kan kan je je demande très bien kan moo bokk ci nguuru Macky Sall wala ku Macky Sall bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar jox ko post de responsabilité corps de contrôle yi lañ bët ko épinglé ko mu am une suite judiciaire bu ci amee kenn nañ ma ko génneel des trafiquants de faux yoo xamante ne ñi ngi doxi seen soxla appel à l'insurrection ngeen di wax Ahmed Suzanne Camara demul toog fii ñëpp di ko dégg mu ne dem leen fekk Sonko këram boo leen ko fa fekkee ngeen taal ko bu leen yem ci moom taalaale leen njabootam loolu du appel à l'insurrection Ahmed Suzanne Camara est-ce que mës nañ koo convoqué sax police ce même Ahmed Suzanne Camara demul toog ci quatre plateaux de télévision yu bokkul ne Didier ji ak Fulbert Sambou Pape Alé Niang ak Ousmane Sonko ñoo leen rey au même moment le procureur de la République génn def conférence de presse ne dañoo réer moom mu am fit bu toll ni dem ci ay plateau de télévision ne dañu leen a rey ba léegi mi ngi yeewoo ci biir njabootam mi ngi dox ay soxlaan léegi nag ngeen bëgg ñu gëmloo ne loolu mooy justice loolu mooy impartialité loolu mooy état de droit monsieur le président ku bokk ci yow mën naa saaga ndey ñëpp dajale sénégalais yëpp takk leen wax leen lu mel ni xeme du mujj fenn waaye bu fekkee dafa am benn militant jeune di même pas responsable benn militant wu parti Pastef bu bindi xalaatam ci post Facebook ngeen mobiliser armada pour traquer ko pour dem jëli ko dugal ko kaso après vous venez nous dire que nous sommes dans un état de droit tes collaborateurs ñëw di def la grande gueule sur les chaînes de télévision pour nous dire que nous sommes dans un état de droit quand même il faut respecter les sénégalais ngeen respecter àq ak yelleefu doomu aadama yi ngeen respecte nit ñi ñuy ñuy exprimer seen ay opinion librement le président de l'association des maires du Sénégal de Benno Bokk Yaakaar génnul fii mu ne Macky Sall bu nekkul candidat réew mi tàkk Oustaz Assane Seck ne euh, Ousmane Sonko bu nekkul candidat réew mi day tàkk ñu dem jàpp Oustaz Assane Seck dóor ko ci kaso bi ba fi may wax ak yéen nii te même propos yooyu le le le le le président de l'association des maires du de benn du Sénégal tenir et vous pensez que lii day continuer ngeen jàpp ay doomu aadama di leen toroxal di salfaañi seen ay àq ak seen ay yelleef sciemment te du mujj fenn dama ne il faut qu'on se respecte dans ce pays justice bu jógee di doxal na doxal de façon impartiale amul kumba ndey kumba am nday ak kumba amul ndey boo faree ak Macky Sall mën ngaa jóg wax lu la neex ci réew mi mun ngaa duudal ku la neex mun ngaa saaga ku la neex du am benn suite. Ahmed Suzanne Camara taxaw wax li mu wax ci réew mi répété ko am courage yu wër ay plateau de télévision répété la même chose ba fii ñuy wax ak yow nii dara inquiété wu ko ci convocation police sax mu ko mu musu ko cee fekk beneen sénégalais bu am liberté wax xalaatam ñu ne ko doo ko fi waxee. C'est parce que tout simplement, il ne fait pas partie de l'Alliance pour la République. ñaata nit ñoo fi yëkkati ay kaddu yoo xamante ne dafa safaanoo ak ay kaddu yu jub teg ko ci ay goru ci ay deru gor ci réew mi seen bokk ak alliance de la république tax kenn musu leen inquiété ngeen teg ko fan et vous nous la justice est impartiale nous sommes dans un état de droit un état droit mooy boo bokkee ak man parti mën ngaa def lu la neex mun ngaa détourner ay deniers publics mun ngaa xëy jàkkaarloog sénégalais yi yëpp wax leen naka sodul noonu gisuñu fii nit mu taxaw na bu soobee yàlla soo ko dinañ ko jël dugal ci kaso bi ñi ci war a jàpp delloo leen seen kër dinañ leen delloo seen kër ñi ci war a rey dañ leen war a dinañ leen rey comme si setee nit ñi ay weñ lañu quoi. c'est parce que tout simplement par Alé méngoowul a yéen xalaat ni ngeen di gisee bokkul ak ni muy gisee mu am droit librement exprimer ses opinions ngeen ne ah ok comme am na audience bu rëy moom wax dëgg yàlla kii moom foog ñu neutraliser ko parce que tout simplement loo leen waxtaanee la ah je le rappelle encore une fois te yëg nañ ko loo leen waxtaanee la seen biir ne carrément c'est quelqu'un qui constitue un entrave par rapport à notre projet nee naa leen ba tàyyi fa ngeen di toog di waxtaan ngelaw ngelawal càll mbeer la jaar moo koy indi ci ñun il faut que ngeen respecter sénégalais yi Macky Sall dafa ñëw en 2012 dël réew mi ñu am ci moom considération bu mag ak respect mu jël ko ci anam bu rafet ñu am yaakaar ci moom mu dawal waay waay 12 ans de magistère ku ko def ba mu dese la juróom benn weer xanaa war ngaa tal leneen lu dul ubbil ay feu xanaa war ngaa tal leneen lu dul créer ay nit di emprisonner ay nit gratuitement vous pensez que priorité yi ci ay jàpp ay traquer ay nit di jàpp di dugal ci kaso la nekk pour le moment pendant que vingt trois personnes ñi ngi dee barki démb ci tali bi auparavant quarante personnes ñoo dee woon ak quinze personnes yu dee woon sur les routes saa compter ñi nga xamante ne ñooy accidenté au jour le jour suñu doom yi di jël gaal gi di dee fukki nit ak juróom biir ndakaaru à Wakaam dee ñu jàppoo leen génne teg ci tefes gi ñu ne fan la doon dem ñu ne Barça wala Barsaq yaakaaroo leen ne seen ay priorité ci yooyu la waroon nekk te ngeen di traquer ay nit parce que tout simplement wax na benn phrase parce que tout simplement vous êtes dans des calculs politiques politiciens parce que jàpp ngeen ne cette personne là peut constituer un entrave pour leur pour votre propre projet encore une fois il faut que Macky Sall mu comprendre benn affaire réew mi mën ngaa nekk ci calcul bu la neex mën ngaa wax lu la neex mën ngaa dugg fu la neex mën ngaa def ay combine yu la neex mais sénégalais yi ñooy fale ñooy folli sénégalais yi ñooy fale ñooy folli sénégalais yi ñooy xool ku leen ñoo la xooloon 2012 ba nga doy leen ñu yëkkati seen ay carte jox la fal la ne la yaa ñu day jiite ñu ngalawaay boo demee ba nga xamante ne juróom benn weer moo la dese ci réew mi pour nga war a dem mais pourquoi nga bëgg réew mi nekk ci ay guuta sénégalais dañu la lebal loolu pourquoi nga bëgg réew mi nekk ci benn chaos pourquoi nga nekk bëgg réew mi nekk tout le temps ci spirale bi dàqante ak ay police policiers grenades lacrymogènes tous les jours pourquoi les sénégalais sont fatigués nit ñi dañu bëgg a jàmm ci réew mi dañu bëgg a dal dañu bëgg apaisement nit ñi liggéey ñi am seen soxla di ko liggéey liggéey réew mi du rek politique réew mi du rek Ousmane Sonko tous les jours réew mi du rek grenade lacrymogène dafa xam ñoo xam ne politique wuñ ci réew mi yor seen ay business di ko doxal nekk ay entrepreneur nekk ay indépendant war a am fulla ak fayda di doxal seen liggéey mais chaque jour ngeen dugal réew mi ci loo xamante ne à travers des calcules politiques tous les gens dañuy nekk ci benn kii vive boo xamante ne kenn mënu la ko expliquer Mais saa vous pensez que ça va continuer Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas du tout continuer. réew mi nekk en permanence ci benn atmosphère boo xamante ne c'est hyper tendu chaque jour xeexoo xuloo mu am yeneen priorité yoo xamante ne waroon ngeen ci concentrer seen ay énergie waroon ngeen ci concentrer seen ay politique xool li ngeen di joxe ndaw ñi xëy xool li ngi leen di joxe liggéey mais ndaw ñi jàpp gaal gi dugg ci di dee ci océan Atlantique bi comme ay weñ di dee ci tali bi comme ay weñ et vous pensez que ça c'est normal vous pensez que Macky Sall bi ñu lay fal en 2012 lii nga ñu waxoon 2019 moo ci wees un million de un million d'emplois nga diggoon jeunes yi campagne présidentielle 2019 un million d'emplois nga leen diggoon ndaw ñi ñi nga may seetaan ma ne wax leen bu fekkee un million d'emplois yooyu gis ngeen sax moitié bi wala kaar bi wax leen ko ci wax leen ci commentaire yi et que nous on continuer à subir léegi loolu li ci dolleeku mooy nit ñi non seulement amuñu liggéey amuñu xëy ba pare nga bëgg leen cee tagal ñàkk jàmm ci seen biir réew amuñu xëy amuñu liggéey ba pare nga bëgg leen teg benn violence en permanence et vous pensez que loolu mën na continuer mënul continuer monsieur le président mënul continuer ñi lay xelal ne leen violence bi nga xamante ne ñi nit ñi ñi ngi koy exercer ci population bi dafa doy ñi lay xelal nan la jàppal pap Alé Niang dugal ko ci kaso bi ndax nga am jàmm non diggaluñ la lu baax parce que Pape Alé nga jàpp ko dugul ko ci koso bi ça ne change rien de ses positions du changer dara lu tol ni tarfatal ay ni laa lay wax ni du ko changer ci engagement am dugal ko kaso mille ans dara du changer ci ay principe am c'est parce que da nga umpale kan mooy Pape Alé Niang monsieur le président les priorités sont ailleurs les priorités c'est pas de traquer des journalistes c'est pas de traquer des opposants c'est pas de traquer des chroniqueurs c'est pas de traquer des marabouts dugal leen ci kaso bi monsieur le président j'espère que da nga xamul kaso moo tax ñu ànd ak yow jël nit dugal leen fa yomb lool parce que jàpp naa ne boo xamoon dëgg dëgg kaso ak li ci nekk parce que xam nga ñu bari dañu yaakaar ne injustice bu dalee ci nit ba nga jël nit dugal ko kaso séquelles yi ci moom rek lay yem non monsieur le président boo ko xamul ñu wax la ko yàq nga ay famille yu bari ndax jël seen doom dugal ko ci kaso tas nga ay famille yu bari ci réew mi créer nga ay séquelles yu terrible sur des personnes parce que tout simplement da leen jël dugal leen kaso et de façon arbitraire monsieur le président boo ko yëgee boo ko yëgul am na ay famille des milliers de familles yu nekk ci réew mi yoo xamante ne ay waajur lañu ñu ngi souffrir au plus profond d'eux ñu ngi au plus profond d'eux ñu ngi am ay séquelles yu terrible parce que seen doom yi ñu ngi tudd ci kaso bi inutilement et vous pensez que tout ça noonu monsieur le président du am benn effet quoi mën nañ jàpp ku leen neex jël dugal ci kaso xoñañal ko metital ko boo waxee ñu ne dañ koy dugal ci kaso bi pour yar ko monsieur le président ma fàttali la campagne présidentielle 2011 2012 yow ak ñi ànd ak yow lu ñu yëkkatiwul woon ci kàddu teg ko ci maître Abdoulaye Wade dañ ko fàttewul am na ñu demoon ba yegg ci defar néew taral ko ci sërke indi ko ci place publique teg ko naan góor gi dee na monsieur le président yow taxaw nga nekk ci sa biir oto ñu filmer la nga ne carrément C'est fini, nous allons le dégager du palais. Parce que maintenant, il n'y a plus de dialogue. taxaw nga ci meeting deuxième tour ak sa ay alliés yi la doon jàppale nga ne tu as la possibilité de mobiliser plus de quatre cent jeunes quatre cent jeunes pour conquérir le palais mais est-ce que dafa taxoon Ablaye Wade ñëw ne la appel à l'insurrection dañ waxante dëgg waxante dëgg yan propos ngeen tenirul contre Abdoulaye Wade en 2011 2012 est-ce que dafa tax moom mu jël doole bi mu am ci justice doole bi mu ci am ci police à l'époque ak gendarmerie di ko dóor ci kaw nit ñi di ko dóor ci kaw opposants yi di barricade seen ay sièges ci sur aucune base légale barricade la maison de Ousmane Sonko pendant cinquante cinq jours Et des gens veulent continuer à nous faire croire que nous sommes dans un état de droit. Des gens veulent continuer à nous faire croire que ñun ci dëgg la ñu nekk république bu normal la ñu nekk tout fonctionne normalement dama ne réew mi fii ñu toll nii sénégalais bu nekk di yeewoo ci réew mi na nga jël sa ay responsabilité sénégalais bu nekk di yeewoo ci réew mi na nga jël sa ay responsabilité parce que Macky Sall moom ak ñi mu àndal moomuñu réew mi dañu leen a dénk réew mi ngir ñu war koo doxal ci biir doxal boobu ñu war a saafara jafe-jafe askan wi ak sénégalais yi waaye bu ñu demee ba saafara boobu ñu war a saafara jafe-jafe askan wi ak sénégalais yi jur jàngoro jëm ci sénégalais yi dafay baax nit ñi taxaw dafay baax nit ñi taxaw waxtaan sénégalais yi ñoo moom Sénégal citoyen sénégalais yi dëkkee réew mi ñoo moom réew mi Macky Sall dañ ko wóolu woon dénk ko buñ ko wóoloo dénk ko mu doxal mais li mu doxal nag wax dëgg yàlla neex yàlla nañ waxante dëgg li mu doxal ñëpp gis nañ ko pendant que yéen a ngi topp ay nit di leen trake topp ay nit di leen trake di leen mettre sur écoute vingt quatre heures sur vingt quatre moindre déplacement bu ngeen def ngeen ngeen topp ko parce que en fait en réalité il faut que mbokk yi sénégalais yi ngeen xam benn affaire Pape Alé Niang dafa nekk nit koo xamante ne du jàmbat mais li ma leen bëgg a xamal mooy liñ koy teg ci métit ci réew mi te nit ñi duñ ci teg seen bët mais dafa ëpp dafa diis ban sénégalais tey jii moo bëgg di dund ci benn réew boo xamante ne mënuloo dem fenn mënuloo dugg fenn foo dugg ñu ngi lay topp ñu ngi lay déglu ko foo dem toog dinañ fa dem di envoyé ay renseignements généraux di jéem a xool loo fay dox loo fay lijjanti. vingt quatre heures sur vingt quatre di traquer benn doomu aadama mu jaral leen ngeen mobiliser les moyens de la république vingt quatre heures sur vingt quatre pour traquer benn doomu aadama et vous pensez que ça c'est normal mais le temps que ngeen di traquer benn doomu aadama boobu mais seen énergie dem leen ngeen traquer ngeen perquisitionner kër yi nga xamante ay kër la ñooñ yoo xamante ne dañu ànd ak Macky Sall ñu fay sàcc ay huit cent mille ak deux cent cinquante am na ci réew mi sàcc kër ci kër huit cent millions mujjul fenn sàcc deux cent cinquante millions ci kër mujjul fenn et vous nous dites ñun ñu ngi ci benn état bu normal tout fonctionne normalement état de droit encore une fois dama bëgg Macky ak ñi koy xelal ñu xam benn affaire pour de bon jàpp Pape Alé Niang dugal ko ci kaso bi du tax mbir yi arrêté te gis ngeen cette fois-ci j'étais très classe et moderne modéré mais cette fois-ci cette fois-ci day changé duma ci dugg nag ci benn détail mais cette fois-ci nous allons nous battre on s'est toujours battu Mais nous allons nous battre jusqu'au bout. Parce que tout simplement, Pape Alenia est victime d'un acharnement de la part de l'État du Sénégal. Ça, c'est la triste réalité. Parce que tout simplement, il, il, il dérange. Et vous croyez que nit ñi dañuy continuer di xool noonu di di bàyyeeku ngeen di jël doomu jàmbur dugal ci kaso saay su leen neexee génne saay su leen neexee di topp ak ay scooter ay yëfi dof ba ba kañ jàpp nit ñi di leen topp di leen mettre sous écoute di leen topp ak ay scooter di jël ay yëre Baay Faal di di fu nit ñi dugg mais nit ki sax amatul droit léegi dem dox soxlaam ci benn banque wala kii fu mu dugg ngeen dugg toog ci wetam mais ba kañ arrêtez ça suffit arrêtez laa wax ça suffit Pape Alé Niang amul dara lu mu def appel à l'insurrection kan moo dégg ci live mu démb bi mu appelé fenn à l'insurrection c'est faux et archi faux man maa ko wax c'est parce que tout simplement vous avez envie de le prendre parce que projet la boo xamante ne yéen a ngi koy togg depuis février li ma leen wax xam ngeen ko xam naa ko yéen a ngi koy togg depuis très longtemps pour xool benn moindre occasion rek ngeen ni ko kirtim ngeen teg ko fan réew mi ñëpp a ko bokk ñépp war a wax seen xalaat mës ngeen journal gis journaliste boo xam ne day xalamal Macky Sall ñu convoqué ko sûreté urbaine moo ne am na ci réew mi ay journaliste yoo xamante ne saa yi suñu yeewoo ci li neex Macky Sall la ñuy dox suba ba ngoon saa suñu yeewoo ci lu neex Macky Sall la ñuy dox suba ba ngoon Pape Alé bokkul ci ñooñu bokkul ci ñoo xamante ne dañuy sukk di raam di jëbbalu ci kanamu buur bu amee ñoo xamante ne ay privilège tax nañu mën a sukk raam jébbal seen bopp buur loolu seen problème la et puis c'est leur droit le plus absolu ñu nangul leen ko mais Pape Alé ñaa askan wi mu bokk bokkul kuy raam di sukk di jéglu sur qui que ce soit mën a wax xalaatam di ko wax askan wi di ko déglu ngeen ne loolu du fi amee pour lan Les gens sont extrêmement fatigués et épuisés dans ce pays. Ce qui se passe dans ce pays est plus qu'épuisant. Mais Macky Sall man la ma la waxoon ca tàmbali ba laa lay waxaat Pape Alé ba mu ko yàlla di bind tàgguwu la tàggaluwul benn membre de l'Alliance pour la République du ministre du kenn tàgguwul kenn kuy dox ci kaw suuf yàlla moo ko xool mu soob ko mu bind ko ni mu ko bindee def ci moom li mu def ci moom def ko sénégalais wacce ko ci biir Sénégal def ko journaliste def ci moom dayo bi mu am bu fekkee ñi nga xamante ne ñoo la wër loolu daf leen naqari dañuy yéeg ñu kalaame ko yàlla bu fekkee bu fekkee sa journaliste yi nga xamante ne yaa leen dajale ñu nekk ci say waaw te mënuñu supporter loolu ba ñuy dëju ci ay ay kër di waxtaan ci nuñ koy faagaagalee dama leen di wax benn affaire ngeen xam ko Pape Alé Niang ba ko yàlla di bind tàgguwu leen te gis nga fileeg app bi nga xamante ne suñu borom daf ko ko defal ci kaw suuf jeexul ak li mu war a doon ci réew mi kenn ci mu munu ci lu mel ni tarfatal ay ni gis nga duma sax dugg ci détail mais vous avez tout essayé lépp lu nit di xalaat ci àdduna rek ye ngeen ko contre lépp lu nit di xalaat essayé ngeen ko contre lui jéem ngeen ko faagaagal jéem ngeen ko boole ay agresseur dem ngeen ci quatre-vingt-dix mille sëriñ di ko sëriñtu yàlla di ko suturaal parce que nag yéen recours yooyu ngeen am bu dul justice rek mystique la bu dul justice rek ma ne la parce que ñaari recours yooyu ngeen am il faut que ngeen delloo siwaat seen xel il faut ngeen delloo seen xel ngeen xam ne nguur yàlla suñu borom moo dul jeex Macky yàlla moo comp ci nguuram jox la et yow yaa waroon nekk ku gën a mën a am yërmande ci sénégalais yi parce que sa parcours moo tax sa parcours ak fi nga soqeekoo ak fi nga jaar ba jul réew mi moo tax yow yaa waroon mën a ëpp yërmande ci sénégalais yi parce que tout simplement danga am jaar-jaar boo xamante ne wax dëgg yàlla ñu bari ci sénégalais yi xam nañ ko nga waroon a nekk ko am yërmande ci sénégalais yi mais c'est le contraire ñi ànd ak yow ci APR ñoo gën a soxor ci kaw suuf buur bu soxor nag ku jara ku jara bàyyi xel la parce que lu mu bëgg a teg métit ci doomu aadama da koy xeet dama ne mbokk yi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñu sañoon Sénégal ci jàmm lay nekk ak salaam bu doy sëkk parce que nit ñi dañu am envie di dox seen soxla nit ñi dañu am envie jóg liggéey ci dalum xel mais Macky Sall ne peut pas à six mois de son départ créer des problèmes comme ça c'est inadmissible c'est inadmissible on ne peut pas continuer à cautionner des choses yu nga xamante ne Macky Sall il est en de créer des problèmes partout mais am ngeen lu ci ci ay liggéey yu leen doy sëkk yoo xamante ne war ngeen ko mën a doxal wax leen ci xëyu ndaw ñi wax leen ci hôpital yi nga xamante ne ku feebar faju wax leen ci denrée alimentaire yi nu ngeen koy subventionné ba mu gën a wàññeeku parce que sénégalais yi sonn nañu les gens sont fatigués dans ce pays nit ñi tal nañ leneen lu dul daqante ak police ak gendarmerie ak noyyi ay lacrymogène ça suffit quoi encore une fois ma dellu siwaat nag ci mbiru Pape Alé man la ma leen waxoon laa leen waxaat gis ngeen xeex bi day doog a tàmbali mais cette fois-ci nag dina jël yeneen plusieurs dina jël yeneen forme dina jël yeneen forme parce que tout simplement parfois dañuy fexe di di di mettre la forme pour plusieurs choses mais comme dañu ko séq ak ñoo xamante ne xamuñu yeelaa ku xamul yeelaa dafa am fooy yegg ak moom c'est aussi simple que ça Pape Alé Niang du délinquant du du ko du ay deniers publics ci réew mi lu dëkk di liggéey soxlawul seen cent francs nekk ci réew mi di liggéey téye njabootam téye njàmburam bi mu génnee bi mu génnee prison ba léegi amul kenn ku muy demlanteel ak lu muy fekk mi ngi ci liggéey mi ngi ci njabootam mais ngeen ne yaa xayti du ngeen ko bàyyi waaw ah, baax na loolu la ñuy xool un homme averti nag en vaut deux dina jaay ak bi di ngeen ko dugal dóor mandat de dépôt dina dem rëbës moo moo xam di ngeen ko yóbbu fu leen neex ci réew mi seen seen ay prison mais le combat ne fait que commencer musul arrêté mais day gën di continuer foofu rek laa ci yem encore une fois extrait bi nga xamante ne moo tax ñoom ñuy wax ne dafa def appel à l'instruction man dinaa ko dem daggal leen ko ñëw teg ko sénégalais yëpp dégg ko teg ci seen bët parce que nag mënuñu jël nit ñi di leen jaay doole comme ça de façon arbitraire di leen dugal ci kaso ci ay caaxaan wala ay coobare nit nee naa leen sànq ci sama tàmbali bi am na ñoo xamante ne c'est des ministres de la république yu nekk ci gouvernement Macky Sall bañ bu ñu bañ Pape Alé Niang yegg na ci bugguñu sax nit toog ak moom toog ak ñoom prononcé euh, turam ñu koy dégg. defu leen waxu leen def liggéeyam li muy def ci comme liggéey arrangé wu leen ngeen ne pour ngeen pour ñu prononcé turam ci réew mi sax du ngeen ko dégg li ma leen wax xam ngeen ko bu baax xam naa ko te xam ngeen ma bu baax. lu combat nag na fekk ko commencé parce que nag trop c'est trop foye bi ngeen di foye liberté doomu aadama yi de façon arbitraire ak xoññal bi ngeen di xoññal nit ñi dafay jeex ci réew mi sénégalais yi nag fi may jeexalee mooy yéen laa bëgg a waxal gis nga li nekk di xew ci réew mi wolof day faral di wax ne mbajum kanam boroom a koy fajal boppam réew mi yéen ko jël dénk ko Macky Sall ne ko jiite ñu am ngeen droit de regard ci réew mi ni muy doxee maa leen di sant di leen gërëm di jéggalu bu guddee di leen wax ne nag li tàmbale rek nañ ci nekkee woon démb ak bërki démb noonu lañ koy wéyalee bu neexee yàlla suñu borom lu ci am ci xibaar nag fii développement yi di am ci kanam euh, dinañ ci dikkaatak ak gën ko yaatal incha allah di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di leen dig daxjee lu gàtt ci yeneen waxtaan yoo xamante ne dinañ ko séq mu ñeel réew mi waaye mu ñeel jàpp gi nga xamante ne jàpp nañ ko Pape Alé ndar képp ko ci dul jaay doole loolu ci loo xamante ne dëgg yoon di wax appel à l'insurrection te amuñu benn firnde bu palpable boo xamante ne ci lañ ko teg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal weekendu jàmm euh, di jégalu bu baax nag ci kàddu yi bu fekkee ne guddi na jërë ngeen jëf.